ñuy xëccoo yëf yi ci façon bu nga xam ne benn ngor amatu ci beneen bi góor ga doon jamaaleeg beneen moroomam ñu ñëw fekk ko fi mu toog ne ko sa jamale ba ñay def ko jàpp muy jooy di yëkkat ñu ne ko yow daal yaa baax sa jamaale ñay jàpp ko kay jooy bu ni wallaay jooyuma loolu li may jooy mooy ñay ni mu rëye noonu la ñàkk fayda balaa bàyyi rek waa ji rëcc waaw mu mel ni am na ñu nga xam ni ci opposition bi boo seetloo loolu mooy seen àtte loolooy tax liggéey bu difficile lay doon parce que mënuloo ñàkk a ànd ak ñi nga war a àndal mais est-ce que réellement dinañ la wax li ci ñoom ba mu jeex bu ko defee kon nag man la may xam xam naa ko ca gàmmu ko man ma wax foofa ni bu Sonko bëggee na ñëw ma yóbbaale ko boobu li may gis gis naa ko waaye comme booba am na ñu gëmul loolu parce que dafa bari ñuy wax kenn dérangé wu leen pur moo leen dérangé ndax dañuy wax ci ay ruq ma di ko jot waaw ma defe ni kon nag lu ñu war a bokk dinañ ca bokk lu ñu war a taxaw dinañ ca taxaw waaye nag ñu may ñu ñun itam sunu parti duñ ko fooye ku bëgg ànd ñu ànd ku bëgg leneen it dangay def sa choix mais ñun fi ñu nekk ñu ngi fi waaw bu ko defee kon nag li Alioune wax léegi toogaay jeex na waa ji fii ma toll neew ma jot léegi laa ciy tooñ Cheikh dafa réew ba bëgg de man ko Cheikh doo ñëw ñu weccee mun ma wecce leen ma ne ko nga nekk sëriñ bi rek mu xàqataay ba ba bëgg a rey ba fam ni ma kon day ay yet moom ma fi fekk waaye fekk na yàlla xam na ni dangay xalaat ba sonn njaboot yi toog ci mbedd mi fii dañ ma bëgg a dofloo ndax bu ma sañoon duñu toog ci toog ci naaj bi bu ma sañoon tàngaay bi du leen sonal ñi ci biir la même chose waaw mais li mu doon rekk la doon waaw waaw ma defe ni kon nag fontu jeex na ñi nekk ci biir parti bi bëgg def yeneen nañ ko bàyyi nit day mën a sincère rekk liggéey liggéey bi ku mënula sincère nga seet leneen lu la doy parce ñun ci yàlla lañu compter waaw boo ko defee kon nag ku mu mën a doon nanga jàpp ci yëf yi wax naa ko cheikh yum bii ne ko mu wax ko bokk yi ne ko mu wax leen ni leen kaf yi jeex na taxawaalu yi jeex na kenn ku ci nekk takkaatal sa ndigg ngeen ànd ko ak Alioune lu ngeen war a def ngeen def ko waaw loo tax ma jël us euh, imam Samb euh, imam Cheikh Mbeng bile ni ko déema ko wéttalil ndax ma bëggoon am jot ñuy ànd fépp waaye boobu yaakaar naa bu ma ko bëggoon defit ñoom duñ ma ci bàyyi waaye bis bu jotee nag ba génn jot bu boobaa senegal danañ xam lu xew waaw dafa tolloog nag am na ku nga xam ni daan naag daanuwul ak yépp xam nga Senghor lay déglu li Alioune wax nag moo ci nekk bu fekkee ni dañuy gañee ñu gañee bu fekkee ne duñu ñu gañee ñu gañee waaw di ko topp rek di gañe di gañe di gañe di gañe waaw waaw parce que bu dul lii di leneen bu ko defee kon nag yooyu yëpp ak capitaine bi waxtaan nañ ci waxtaan yu sare dafa bari élément yu muy jot